ñëw ci désordre bi nga xamante am na keroog assemblée nationale Barthélemy Diaz euh, di def lu ko neex foofu noonu kii di euh, euh, Guy Marius aussi jël urne bi dem naka nga jàngatee loolu noonu désordre boobu fa. waaw xam nga ñun ci opposition lañ gën a féete daanaka ci opposition lañu féete mais amul kenn Sénégal ku am fierté wala ku mën a rafetlu écart de comportement yooyu amoon assemblée keroog wax dëgg yàlla képp kuy sénégalais am nga lu la ci gêné. parce que man bugguma opposition bi maye lenn lu luñ koy yeddee wala luñ koy jamee parce que su ma déggee un Pape Djibril Fall jël kàddu di yedd opposition bi naan ay xale yi lu ñu def ci mag yi lañ ko gisee ça me fait mal mais loo ko mën a wax ñoom ñoo prêter le flanc à ce genre d'interprétation tendancieuse donte donte jalgati dafa am du début parce que lii. Euh, euh, euh, effet bi la rek mais cause bi nit ñi duñ ko wax dañuy focus ci li fa xewoon li ci nit ñi gis rek mooy euh, bi gi yanoo urne bi bi Barth yëkkatee micro bi ak surtout bi gii taxawee ci kaw table bi image boobu moom vraiment du image bu rafet loolu wax dëgg yàlla euh, euh, war nañu war nañu sóoraale suñuy noonu war nañu sóoraale aussi suñu bopp Euh, euh, man pour man man gii wax naa ka sax keroog ndeysaan ñoo ñu fekk dikk maa ngi naan xale yi gis ngeen kii police yàgg na ko jagat jagatee tey jii député la police dootu ko jagat jagate man foogoon naa ni c'était fini mais on a vu ça à l'Assemblée nationale mais avant mais avant dañu dugal lim bu takkoo takku takku tamit ci gendarme biir assemblée waa mais mais mais damay damay ñëw ci cause yi tamit man disculpé wu ma euh, gii wala wala Barthélemy parce que li ñu def may na ku mel ni Pape Djibril Fall jóg di leen yedd ak keneen ak keneen ak keneen ak même euh, waa parti au pouvoir euh, ci loolu la ñuy def seen communication léegi xam nga loolu quelque part tooñ nañ ñu sax ñun ñi nga xam ni ñun opposition la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy tax na amuñu benn argument face à ku mën a ñaawlu